mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ginnaaw bañ jugee fi nga xam ni moo di euh, Kër Ndiaye Lo tey nag ñoo ngi fii si Caaroy Géej buñ ne si seen émission xam sa bër nekk deuxième numéro bi émission bi nga xam ne day dem à la découverte des jeunes talents wala des anciens lutteurs yoo xamante ni bàyyi nañ seen waar si làmb ji tey nag ñoo ngi fii nga xam ni moo di Caaroy Géej caaro euh, géej bi ñu ko waxee seen xel dina dem ci benn champion ñu gën ko xam ci le Caïman de yi ñu ko woowee Issa Amidou topp ma ñu dem seet yi nga xam ne mooy le grand champion di Issa Pouye salaamaaleykum champion eh, Seydina Issa ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Eh, la sama rakk ji bas. waaye ñu ngi lay fekk tey nga def sa brison réel bu baax laal say jooy yu baax xam nga. mais gisee naay saa yi forme ah. mais sant yàlla moo seet tey bas. Sénégal seet ñoo defal surprise ñëw seet si seen émission deuxième numéro sama mbër tey yow la. vraiment kontaan da leen suivre mais ay daanaka. Uh-huh. waaw vraiment ngay ñaanal yàlla ci kaw sa kanam rek. dëgg yàlla seen liggéey macha allah ñëpp rafetlu nañ ko. waaw ay ndaara ngeen quoi damay génn ko nag damaa lañ génnaale dama nu génn nii sax. Seydina Issa ñoo ngi leen nuyu bu baax di la ziar di am mbégte ak kontaan tey ñoo fii nga xam ni moo di Taawa Géej ñoo ngi toog fi nga xam ne moo di tefes bi di kontaan si chaleureux accueil bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ami internet yi nga xam ne ñooy safoo di saan Sénégal 7. waaw salaamaaleykum ginnaaw sant yàlla gis yéen saa salaam maa ngi ñaan ngir àdduna yëpp yàlla na yàq àjjana. Hmm. di ko ñaan sama ñaar waajur di ko ñaan ak kilifa diine ngir àdduna si réew mi jàmm sa góor ka ko ñaan jàmm si ñaan si jàmm di nuyu accaare gépp di nuyu sama gars ak sama waaj sama noon bi Iran ak Pa ak euh, Thiam ak sama gaañ Ablaye sama rakk Alaaji ñu nuyu Baara Assane ñi may jàppale yëpp daal maa ngi siyaar ñëpp sama grand frère Omar Sène Babacar Alaaji Rachid Yàllaay mm. may jàppale mm. brave ak Mame Sira mm. ak Ndiouga Pape Sène siyaar ñëpp ñoo xam ne ñëpp ñi may jàppale rek maa ngi leen Amet As du Gueye Pape Sini ñëpp daal maa ne siyaare hmm. waaw ñun ñu ngi yaatu quoi ñoo noonu. Hmm. Hmm. Ah, Issa bu ñu bëggoon xam kan moo Issa tey jii kan moo Issa Pouye. Ah, yow xam nga xam da taa benn dara xam ki Issa bi. waaw ñun ñu def si làmb. jëriñu kenn ñun duñu wax ñooñu kan quoi parce que doo tapé rek xam ñooy kan. loolu la wala doo génne laajte ñu wax ñooy kan. waaw. Euh, làmb dafa la si loxo sant na yàlla bu baax daal si ay ndam. waaw tey jii tey jii a dugal si làmb. kon nii rek ñu daa añu fa kon ni booy sànq rek booy si suñu booy yi suñu doom yi. dañuy añ rek ñëw di bëre. ñu ne ñoom wax dañuy wàcc rek ñëw bool ñu bëre man yoon Dios gannaaw ñu bokk gannaaw su ay ñëw añee pare ñëw wàcc bëre. wala xam nga nga añ ñoo di bëre. waaw loolu di foo di foo ba mu dem ba mu ba nga def ko métier daal. waaw man làmb moom lu mooy. ñi ma doon ànd ñoo doon xanaa mënoo nekk mbëru quoi parce que dama leen daa daan daan ban sonn <laughs> damay jël sama tekkaay dina nga tegal ni ku ma daan nga jël mm. ku jug ma daan ka mu ñaa yow mënoo nekk mbër ñi da nga ma daan mm. loolu ma dugal ci làmb mm. waaw mën nañu xam sa premier sa premier combat kañ ak kan kan nga kan nga bëreel sa premier combat sama premier combat da maa ngi bëre ku ne Ikiri Yékini Yékini junior ñu nekk Ikiri Yékini mais fàtte naa tur bi sax dama kaa woon ndoom ñu ngi bëri ci kason bi daka yan dafa trois bi ñu ma daan waaw ban année la yàgg na ay 2002 en 2002 waaw. Euh, cachet bi boobu cachet bu ba nga sa premier combat cachet bi. nu mu toll cachet dara 40 40 mille la fay 40 mille. Hmm. Hmm. ba nga ba ba nga pare si premier combat boobu ban mbër nga amaat. ma amaat kii kii mbër bu nekk Ikir Koyor ma daan ka. te hmm. di daan rek dama dëgg yàlla. sa premier combat ak Balla Gaye 2 est mën nga ñu cee ñëwal. waaw combat boobu Balla Gaye 2 suñu combat ma ak moom. am na combat signé ma préparé kon yi rek. kan rek. Mm. man bëri la kan rek laa jàppee parce man moom ku may bëri man maa man te loolu laa gëm. Mm. ñu préparé bi. xaw combat bi saa mel ko fay dem ba dem bëri ji foofu mba mbapat. Mm. tafatin mu nekk si mu dem moom tolloog 30 minutes. moom Balla Gaye combat métti. bu ñëwee ma génn de Balla Gaye ñoo doon mbapat foofu géejawaay. mais 30 la mu bëri mooy soog a daal mu nekk ah kooku maa ko mën. ndax kooku mu bëri 30 minutes mën maa téye 2 minutes Mm. daanu ma ko. Mm. ma ne ko kon kooku moom wax dëgg yàlla kon kooku dama koy daan incha allah. Mm. combat bi nan nga ko préparé contre Balla Gaye. nga préparé préparé mbokk waa Thiaré gépp. Mm-hmm. entraîné war entraîné. Mm-hmm. waaw kon ni préparé rek rek ak suñu ñoo amee def ak ñëpp. noonu la rek waaw. mais tey jii lan la lay def nga daan ki nga xam ne moo di Balla Gaye. fàtte naa ko sax wër na yàlla. Ah. billaahi. parce que yàlla moo tax daa ma ni ah Balla Gaye kaa fi nekk waaye yow. wax ma ñeneen waaye Sall. Eh. wax ah, léegi dañuy ñëw si li nga xam ne mooy classe classe eh, bi nga xam ne moom 2007 waaw yooyu ay Balla Gaye Balla xam ne mooy classe bi nga xam ne moom moom 2007 Gaston production organisé woon ko nga daan Tafatine daan Yékini Junior mais ki nga xam ne moo di le puncheur de Waalo ñu ko Lac de Guerre moo la daan sa demi finale mën nga ñëwoon si si classe bi. waaw boobu classe bu neex la woon classe boobu dama dama jël mm-hmm. mais après ma dem ma daan ñaari mbër ñàkk benn bi ma la déggee daan ma. Hmm. waaw classe moom ko moom duma ma ko jël moom weddi ko te làmb moom yeneen ñaam la quoi fa la xëy dammee. mais lan moo la empêché nga jël classe. non xam nañu ne waaye la déggee damay bëri moom boobu nekkuma xamu ma ne sax. Hmm. dama jekk mystiquement daan ma mais ma nekk rek peut-être boobu ma nekk nii. nu mu nu mu lu ma gën a mën a ma daane mu dox soog ma. mais mais xanaa préparé wu combat bi ba Lac di la di la jékku. non man làmb man làmb man làmb dama jàppoon la a soxla hmm. hmm. eh, nga dugg si quoi ñu xamuñu yooyu. Hmm. ñu ëllëgu nañ dañoo gën suñu bopp tural quoi ñun waaw. kon yow jàpp nga ne mystique mystique te yi mystique am na si làmb. waaw am na si làmb kay bañ am Musique am na si la man da yàlla xam na ni combat yi ma ñàkk yëpp musique musique na ma daane ñi ma ñàkk yëpp. mais Seydina Issa looy xoolee ba ñuy. ba léegi daal ci musique waaw mais peut être ñoom si lañ jëloo loolu. man jëloo ma ko man làmb di nga mën la. man ñaan ma yàlla bëri na sa yow ka pour mu leer ma man wala ma yéen ndam ma ma neex. nga nekk parce que su ma defee nii kañ jàpp la ma dem daan la. yow xeex yow du ma la daan la wala ma neex mais su ma liggéeyee liggéey ba ba ñu daan loolu amul sens. après làmb ñi nga xam ne kii nekkul. loolu neexuma ko ay évita bëgguma ko bu ma ba nga jógee si CLAF bi euh, euh, deux ans plus tard euh, mu nekk nga bëreeg Balla Gaye Balla Gaye daal di jël revanche yow lan moo la perdre loo combat ak Balla. non combat dama doon daan daanu rek loolu quoi dama doon daan naa ko mu tëgg ko mu daan ma. yàlla na ko jig noonu la quoi. mais Issa dama waroon daan daan du du du tontu. non c'est man xam nga man ma tax mooy parce que <coughs> ma ci li yi laaj dafa bëri te man damay ah. daan moo daan la bëggoon loolu sot la pour daan. combat boobu waaw parce que xam na ne si ma ci moom maa ngi téye xam na loolu am lóbi la seen biir soo si bokkulee da ngay am problème. loolu la làmb ji su ma wax ko làmb ji lóbi la si biir da bokk ànd ak promoteur bokk ak ñoom di nekk ak ñoom guddee bëccëg. a jàppale nga dem si kaw. man nag ma tànk damaa ba ñëpp xam man amul kenn ku ñu wax ni Issa bi promoteur bi lay ànd ko dégg. dafa bëri bëri ñu coow fi tey jii dangay promoteur ñoo nekk daf ñu te tey yow su ñoo nekk sama xarit ngay tëgg làmb. parce que man ni Ilimane ñu tëgg làmb waaw ñi ànd kooku wala laay bi ñaana mm-hmm. wala moor mu mu ne promoteur ne ma du ma daan mais du gaaw de mais lépp si géew gi lay xewee tamit waaw dégg nga la waaye saa làmb làmb si géew gi lépp xewee avant làmb ji gi lan la a dégg nga man la mooy mm-hmm. doo puus nii yaa may dégg mm-hmm. làmb dafa day war làmb leneen la parce que <coughs> tey joo yow sama ba jekk. ñun chaque mois woo. chaque mm. mois jox la avance chaque mois jekk naa nu ma lay daane làmb moo am si làmb ji ba pare. kon wax rek. Mm. làmb da lay préparé soo soo jox mbër mi avance rek day mënte yow nga mën préparé mbër mi nga préparé ko ba jekk soo ko joxe avance chaque mois préparé naa ba jekk soo ko joxe avance léegi man su ma jugee dama naan sax laa jokk mais problème bi làmb ñi xam na ni mu demee làmb dafa bëri ay mafia bu ne ci biir. Mm. yaa ngi dégg ba si ñi lay cale promoteur ñooy am. Mm. waaw. damay problème bi quoi. Mm. gars yi dina dina def quoi waaw. mais mais eh, mais loo bokkul bokkul bokk si mafia loo bokk bokk si lobby talent ak détermination mën na la yóbbu fu kawe. waaw mais am na foofu dafa àggee <laughs> xamoo làmb de. Mm. làmb la. leneen la comme nan. waaw leneen la xam làmb làmb leneen la quoi làmb dafa nekk loo xamante ni dafa xasee ba nekk nii. Mm-hmm. xabar ay sot sot si biir. Mm-hmm. billaahi wallaahi. bu lu seen la jox rek gars yi mën nañ si defal lu ne ngay sot rek. man man làmb ñu comprendre mais après laay comprendre lu bëri si làmb lu ma xam woon. mais mais Issa la moo tax aaroo sa bopp. ba mu bëri waaw mais man man maanaam man man dëgg man la man. Hmm. am naa fi mel ni mbër mbër mbër mbër mbër mag wax ne nii mais entraînement di daw si géej gi nii am na xam ne moom mu ngi ci oto bi moog estafam tubb sama tànk. Hmm. waaw nga xam ne làmb man yoo xam nga xam si làmb man li ma gëm mooy entraînement ku nekk xaar bi gis nga ñëw wane sa bopp. Hmm. ku yàlla may ndam mi loolu. waaw. ba nga jógee si Balla Gaye bëri nga ki nga xam ne Modou Lo

waaw. Mhm. wala quoi. sa defet ak yow ak Modou Lo. waaw làmb la dana bëri man ma daan ma loolu kese la. làmb da daan ñu daan la da daan ñi ñi daan la moom mooy làmb. Mhm. waaye kam kenn moo daanu man. parce amoon na fi talent boo xamante ne ñëpp moom lañ doon coow. bañ na mbër bu la jaaxal jox ko. Issa loolu dama xam liggéey mais daman la. làmb ji da nga ma la ba ci lëbi dugg la làmb yàqu ba promoteur nekk xar xarite ménagères yi wala làmb yàqu. ñoo mhm. yàq làmb. non dama tax di ko wax loolu dama ko def eh, nit ñi ay xel na yar xalaat yow sa xel nga yar xalaat xalaatal xel li muy jëriñ xalaat xalaatal yaa ngi yar sa bët xool ñi promoteur ñoom bëri yéen a bëri ñu demee waaw mooy nekk di lim lëntu ko def su amoo jot mm-hmm. li ma xam daal mooy làmb ji mm-hmm. fii ku ne yaakaar dama si làmb lu ne mm-hmm. waaw daan na fi mbër mu ne si defe laa fi làmb si defet te bi wër champion yi coow fii leen ay champion am ñi defet ñaam yàlla ko si àdduna maa ngi encouragé di ñoo ñoon ñoon combat bi passé dafa defoon soog si yoon yi mhm. da mhm. def mooy doo yi dem di bëri ji loolu du yoon mhm. waaw te Mansour nag rami nag dafa gaañ ci moo tax combat bi demee noonu mënut a jàpp di wax rek nag di ñaanal tam ñu koy kontaan na moom ñu waajaar ñu feet suñu victoire ba léegi bañ seetee victoire ñun ñu ngi feet suñu victoire yi ñaan ama dem na combat yàlla may ko ndam di encouragé mm. a bëri tamit yàlla mm. sa talent nga xam talent bi nga amoon si làmb ñëpp dañoo nangu woon lan moo tax Issa bañ naan Issa mbër bu la jaaxal jox ko Issa Pouye. lan moo tax Issa amul longévité si carrière. xam nga àdduna. Mm. dund gi moom yaa ngi dund dara jeexagul. billaahi wallaahi waa làmb ji ñeer làmb ji promoteur yi seen waxoon suuf soo ma bokkaat si làmb ji mais dañ ne dañ ne alhamdulilah wala ngay naan danga fay ne nit ki il faut ñu yenn courage yi. Mm. loo entraîné nekk nekk jàmbaar il am ñi la jàpp tànk. Mm. benn côté. Mm. man soxla ma ay ku may soxla benn mbër man nama may tëgg ma toll. maa àgg fa gaa yàggul mais làmb ji entraîné fi tax am combat ñu ay borom kër na ma ñu topp si làmb nii rek entraîné guddi ba ca te yor ak dañuy liggéey yóbbu suñu njaboot. yaa ngi dégg daa entraîné te amoo combat noonu pour lan xalaatuma ka ma liggéey ma xam ne ma liggéey ak làmb laay def. waaw man deux waar ak làmb laa xam ak géej gi. maa ngi tey di nuyu suñu père Khoule que ñu waaju baax ñu may liggéeyal yaa ngi dégg kon daal Dóor waar laa gëm Dóor waar waaw. Dóor waar quoi waaw. Hmm. mais tey jii euh, euh, li ñu daan hygiène de vie. waaw ba nga doon bëri nga sàmm sa hygiène de vie. ba léegi man naan ma dara naturel laa. Hmm. macha allah. Hmm. su ma bëggoon jàppale léegi damay jàpp mais làmb ji làmb ji. ñu may combat bu naax de. ñu may combat nii. su ma toog joxuñu ma combat mais combat yi jox. moo a jarul sëgg quoi. yéen combat la lay jox noonu. non c'est que du ma nekk di may may ñu bës am na promoteur yu may combat daal ñu may fay arrangement ma ñu may ñu arrangement ñu ma a daal su ma joxee ñoom ñu ne nga xam yéen ñaanal sama papa ji bu baax ci tamit passé la jë yàlla ko yàlla xaajal. Mm-hmm. mais papa kii kooku mm-hmm. mm-hmm. ñu yëpp suñu papa ñaanal ñëpp daal kilifa yooyu. Mm. nekkoon caare angéliteur yi. Mm. yal na suñu borom xaaraa jël. ñooñu mën leen a fàtte. Mm. papi kii moom ñi ko ne ma yow làmb dana ciy dégg. saa seetlu yàlla na ko yàlla xaajal. parce que lu waral loolu mooy daañu entraînement mosaa ñu entraînement di conseil def mais man damay def quoi lu mu wax nga mag moo tax moo tax doo nangoo li ma nga am si làmb. mais làmb yi léegi. dafa affaire jàmbaar. mafia la te mafia lu mu duggul ne. Hmm. PRIPA day loolu dëgg loolu dëgg la. dëgg rek mooy dëgg. soo jëlee jàppal ni tànk ñi wàcc ñi am na ñoo man man fekk góor bi duñ làmba te du jeex am na ñoo ma ne maa tax dama doon làmba ndax lan yaa ngi ne làmba ji papa loo ak mafia te ñun suy tëgguñu la duñ làmba waaw. Issa tey jii boo xoo boo gisee parcours bi nga def si làmb est amoo déception sa carrière. déception mooy sant yàlla bu baax. Hmm. dañu def challenge lamb am si defet xaaka ñi am ay defet mm. xaa war a xaraju kon saa damay sant yàlla dafaal damay daa tafaaj xaa tafaaj daa war a tafaaj laa war am perso mais daan Balla Gaye Balla Gaye bi nekk digg mm-hmm. junior ah ñeneen ak ñeneen a léegi ma xaa man man sama sant yàlla kon moo ko non si maam mooy mooy parcours bi nga def heure bi la waroon dégg si roi des arènes non loolu suñu borom la mm. mun ma bëri ñàkk bëri mm. yàlla tedd na suñu làmb rek sa waay man hmm. làmb tedd naa si am naa si lu ne hmm. mais suñu làmb dañuy continuer tedd hmm. sant yàlla fu ma toll xalaat mu ngi nii xol bi day neex sant yàlla rek parce que apprendre rek fu mu toll day sant fu mu toll day sant ñun xam nga tax ñun dañoo gëm seen aliment xam ne mooy rasulaa na kaa gëm nungul nag kilifa diine yëpp si yàlla teg ñu nungul leen yaa ngi dégg mais ñun suñu bokk ñun ah ma ñoo iñaan a ñëpp jàmm parce que doo yéene ñu jàmm nga am jàmm moom loo tax dama am jàmm. te yàlla bàyyi ma boole. suñu borom bàyyi ma. sa Issa sa dernier combat ci arène kañ la. de xaaral sa lamb yow. sa dernier combat kañ la kañ nga gëj a bëri. waaw man xaaral ban année nga gëj a bëri laa la wax. waaw mais sax man li may neex mooy. Hmm. da nga da ngaa ñëw seen intéressé da nga dem xooli ko pare. Hmm. parce que am na xam ne man li nga war a def yow yaa ngi ko maa la koy expliqué. Hmm. ma la ko wax xam nga tax te loolu sa liggéey la gëstu nga xool du ma la wax yenn yi parce que loolu sa liggéey la yow waaw tey jii sa longue absence bi nga def si longue absence bi est-ce que amul sa carrière wala yooyu noonu. saa man léegi xaw ma de jàmbaar dafa gën a dëgg. Uh-huh. billaahi wallaahi man xaaral ma ko mu yaram mi daal rek dërëm. Mm. ndax ñu. bu mm. mm. ñu ñu naloo. <laughs> maanaam bii mbër mi wax man mi. ah. ak liggéey avant maa bëri maa ngi liggéey ba tey maa ngi liggéey yaa ngi dégg. Hmm. ñun dañoo nampatal ci liggéey ñun. ñu ay lëbu liggéey na xam ak bëre. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. di nuyu tamit Paa du Fall. di nuyu ñu ngi fay ñoo yor wàllu sécurité bi ba. wax nga ñëw foofu xool fi bagage yi ne foofu. xar yeeg lépp a nga fa. Eh. waaw lépp loo bëgg daal doo ñëwee Feera ba foofu. doo ñëwee Feera doo ñëwee di nga xam doo ñëwee daal ñëw fa nga xool. di nga ne Paa du Fall bu baax ak gars yi foofu ñu leen di siyaar bu baax hmm. ak sama gars yi ne foofu di nuyu tam suñu grand xaar yi moo géré moo moo moo jiite sécurité bi hmm. ñëpp ñu ngi xool dóor waar foofu quoi sama hmm. ñi nun gëmuñ dóor waar nañ gëm waaw Issa waaw damay dégg ñeen Issa dañ ko atteindre mystiquement est-ce que loolu dëgg la ci làmb waaw mais xam nga nit ñi moom ku ne moom daa wax sa xalaat ah dafa dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax si defet alhamdulilah si defet am di ci victoire su sant yàlla ko du ma la moom ci ndam su ma sant yàlla du ma góor hmm. moom dañu ko wax da lay jékku daal la c'est normal la loolu la yàlla dinañ jik mais ñu ngi sant yàlla ñun suñu ndam ndax dina daan muy neex ñu daan tamit am problème mais tey jii ban adversaire nga bëgg man hmm. su ma gënal lu ma gënal lu dëgg hmm. yàlla ma yàlla ci ko gën si man ku gën si yow waaw kon dàqoo kenn dëgg man la waaw man yàlla yàlla jox ko gën si man rek xam nga yàlla ma ko gën si man yàlla yàlla jox ko gën si man waaw mais ku gën si yow dafa dafa Issa non da nga ma leen wax xam nga su nit ya jaam bi day mm. ñaan mm. yaa ngi dégg mm. moom dama tudd man départ ma tuddee tuddee mbër man champion la yàlla ma jox mbër mu gën si man rek ma am si ndam la ñaan yàlla kon ñooy wow promoteur yi ñu ñëw promoteur ñu may woo sax léegi léegi dina dina toogaat maa yow ah. dina toogaat dafa benn émission fekk moom combat lu yàgg incha allah waaw sa relation ak Reug rek suñu rakk kan ñu am rek man ñu caare fi ñëpp seen nan suñuy waay nan ñëpp suñuy waay nan yaa ngi dégg man caare mbir yëpp samay commune lan ñëpp jàmm laa seq ñoom mm-hmm. yaa ngi dégg yaa ngi dégg mm-hmm. waaw rek ñu ngi koy ñaanal yàlla mu nekk roi genné kenn dañ koy ñaanal ñu amee dem rek ñoom ñëpp mm-hmm. waaw te am na yaakaar si ñoom ñëpp xam ne roi genné dina dugg caare incha allah rabbi combat Reug Reug ak Sa Thiès naka nga ko préparé ni nga ko préparé préparé na gën a préparé ànd ak si waa caare yëpp ñëw daan Sa Thiès yàlla may ñu ndam yóbbu drapeau bi tey mën nga ñu ñëwaatal si combat bi nga décrypter ñu ko waaw combat bi combat bu mystique bu mystique la sax mais làmb ji dafa tegul si yoon. ah loolu wax tegul si yoon. parce que ñu ne baabi ñu Modou Lo kaapi la def gars yi dañoo bañ. Hmm. yaa ngi te hmm. loolu kaapi fekkante ñu trapi la dafa gaaw yaa ngi dégg mais vidéo doo ko posé da dem kaapi mais te fekkante ñu dafa gaaw la def jaar équipe nationale xam na la fa ne yaa ngi dégg waaw làmb ji. problème mooy dafa bëri affaire ci nekk quoi. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. fii bëri na ñu nekk télé yi di wax genn wàll gi. Mm-hmm. xam nañ fi féete quoi am na wax jot ñu nekk débat. bi dafa na seen nekk télé yi fii. ñu xam nañ leen avant démb ba tey ñu xam ñu xam nañ ñu doxee ñoom. ñu xam nañ ñu doxee ñoom xam nañ ko ñun. waaw ñu ay nga ak quoi si làmb ñu si bëgg na daañu daan nañ loo loo yàgg. xam si dara. waaw en tout cas maa ngi gërëm waa Thiaré gépp ñi nga xam ne gis nañ ni taxaw seen ni ñu taxaw mbiri Thiaré yi di ñaan tamit ci réew mi jàmm dina ñaan ñu nit si kaw ci kanam waaw. Mhm. si biir combat gis nañ euh, Moustapha Guèye ñëw ba ci cumukaay rek rek bi loolu ban interprétation interprétation ko ci ma daje fo faaru. Mhm. mën na kii Modou Lo. Mhm. moom maa taxaw damaa taxaw ni dafa daan maa wax naa ko ma ne ko kon baax na mais dama la xam daal mooy làmb ji ni muy doxee ñu xam nañ ko ñun waaw fii li fi nekk lépp ku ko bëggee wax sax nga nekk wax kat nekk lépp ku ko bëggee wax gi nga mujj a dof li daal nga bàyyi loxo yàlla yàlla moo naate dina hmm. que nit ñi nit mel doo comprendre quoi nit ñi hmm. ndax ñenn moo tax dëgg nu dëgg na koy jël dëgg teg seen tànk moo tax doo ma tax yenn yi quoi doo comprendre nit ñi quoi ni ci léegi na dañuy jaay alal da alal day jeex. Hmm. waaw. Euh, tey jii Issa mbër yu nekk Caaroy bëri na est-ce que 200 pour cent Caaroy wala 100 pour cent Caaroy boobu dëggu na. ah man de benn daf ñëpp de wax dëgg yàlla. Hmm. waaw wax dëgg yàlla xaj na ma ko waa bi maam ñoom combat bi moo tax ñëw woon ñëpp a nga xoon. parce que keroog ba combat bi jeexee. waaw ñëw nañ fii nii di jël yenn réaction. waa mais dafa am ñu ne daa am ay mbër yu nekk caaro yoo xamante ne dañuy xeexal day xeex si biir. non ñooñu bokkuñ Caaroy quoi ñooñu bokkuñ Caaroy. ñoo dëkkuñ caare quoi ñooñu. ñooñu dëkkuñ caare quoi. ñooñu moom. ay wàll yaa na si caare la dëkkuñu caare quoi. ñu juddu caare moo mais saabu saa caare dëgg juddoo caare ni lébu lébu pire am na fa doo ko def quoi. mais àdduna na naafiq yi fa ne àdduna moom la noonu foo dem am na ay warkat yi fa ne. mais lu intéressant ñun caare na am su ma noonu gëm. yaa ngi dégg di ñaan nag caare te jii lan mooy expliquer euh, ñaari defet yu tegloo Baye Mandione ak Reug Reug bi tey. non non Reug daa ruul da sa waay man ba ba àdduna tukki dafa dans sa kees ku ma la moom wax. dama ne fi mu bindee ni ñoo ñoo ci kayit victoire day di kayit victoire leer si bët victoire day ma koy ma xool si kayit rek leeratul dama la daan ni ku daan ngay féete kaw. Reug Reug na kaw saa kees daan na ko jeex na. Hmm. amul leen li ma la wax man dégg ñu. waaw loolu la quoi maa daan ma koy daan ñaari jël fi kenn ngoon dafa njëkk a fii. gars yi bañ ba débat comme tëdd ñu soog a nangu ba pare xam la wax hmm. dama pare dama ni làmb kii te lañu raw waaw ba pare dama moo ñu romb ñëpp ñu naan loo ko tax ma ne fu nga tax naa ko parce que dafa am jàpp rek hmm. lu ma def ma ko àgg ma ko àggal ma ñu àtte làmb ji dafa njëkk a teg fii en gars yi bañ abakaay mee naa li la ba tey gars yi bañ ci hmm. la yaate làmb ji mais dama kaa daan ba kin bi a nangu tey jii boo amee conseil boo jox booy jox seen lutteur mooy seen écurie bi lan nga leen jox tey jii. waaw li leen conseil mooy ñu wàññi wax ji wax tuuti def lu bëri moom laa xam. Hmm. te wax moom moo tax ñàkk mel na yam na jëf ji daa ëpp jëf ji parce que dëkk bi nekk dafa nekk nag dëkk wax dëkk jëf la jëf. Hmm. moo toll foofu wax wax ji dara topp da ngay dem da lay wax loo yow. Hmm. da an loolu te gën a àndandoo ah gën a nekk bloc. di gën a suñu président Babacar Diouf di nuyu suñu entraîneur hmm. si mel hmm. ne Sidi Pain. Hmm. li ma koy tëjee mooy coow li politique bi nga xam ne moo xew si mi mu bëri yi nga xam ni dañ leen ni eh, eh, yenn yenn yenn politiciens yi dañ leen jël ñu nekk ay nervi ba mu bëri ay coow en tant que yow mi porteur de voix message ngay laaj si loolu noonu. man moom li may conseillé sama mbokki mbëri mooy ku ne amul daa xoro ko la neex. ku ne mbër ay nit a ku ne am nga fara droit fara ko la neex mais nag du ma ànd man. mais le fait que ñu mhm. ma ànd ak ni suñu a dëgg. mbër mhm. mi su ko neexee fara Macky Sall su ko neexee fara Sonko mbër mu ne. yaa ngi dégg man personnel man ah, ma xam xam ne man ma sa fara man ba mu Issa ba léegi nëbbu ma ko man moom damay naan faa ngi ma sama bopp. Mhm. yaa ngi man Macky Sall laa wala neexee. nëbbuma ko. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. mais nag Sonko nit ku baax la. Mhm. yaa ngi dégg mais Macky Sall dafa bëgg mooy lu naral ma jox wax dëgg yàlla mais yar gi nekk ci moom loolu dafa bëgg loolu laa ko faraloon. yaa ngi dégg. loolu la saa yu nii moom laa faral ba ñu jëm élection ñu xool na fu ñu jëm <laughs> waaw parce que mooy président bi ñu président. mu ngi liggéey wax dëgg yàlla gis nañu li muy liggéey Sénégal. Macky Sall liggéey gumba Sénégal sa daj waaw bu dem di coow moom di xeexaa fii moom amul sens nguur moom day jeex yàlla mooy fale nguur ko yàlla fale Sonko nungu nanka ka fale Karim Wade nungu nanka Khalifa Sall ko yàlla fal nungu nanka ndax yàlla moo yor nguur ku nga ko jox. Hmm. ñun nungu nanka parce que ay jaam dañu ko dogal yàlla. donc man côté bi ma waxee. waaw comme ça nit nekk mbër ñu ko utiliser comme nervi. waaw nervi moom lay wax rek yéen yéen a tàmm fu ngand ngeen ne ngeen ne mbër la yéen fu ngand rek ngeen ne ah, mbër la nervi ay mbër la non non lu ñëpp am na ñoo xam ne nii danaa yëpp mbër ñoom ñi taxaw solo si ñu nekkee am mbër la dana Gris Bordeaux di maa ngi nuyu Gris Bordeaux Gris Bordeaux gis na waa ji nga ne ñaa Gris Bordeaux la mbër hmm. ay ndoom la na sa am ñoo xam ne nekk ci quoi tal ko sax man ko ma dem di la xeexal yi am nga moo si la fin looy tàggatoo internet li may tàggatoo mooy yéen yàlla na yàlla yokk ba ni jumaay Tuuba amiin amiin vraiment ay vraiment di leen ñaanal yàlla fi nga bëgg yéen a xam yàlla na fi yàlla àggale mm. waaw yàlla na yàlla jàppale mm. di ñaan si réew mi jàmm mm. réew mi képp ku naan xañ yàlla na yàlla xañ jàmm man loolu laa ñaamal sama xol bi yaa ngi dégg képp ku naan ku naan xañ jàmm réew mi ah yàlla na yàlla xañ jàmm doo ko tal waaw ndax politiciens yi moom ñu il faut nit xam ne politiciens yi moom ñu Sénégal de maa gum leer Sénégal du politiciens rek a fi nekk ay nit yi jëlee dafay nekk nit ñi baax yaa kon politicien moom ñu Sénégal. Hmm. voilà fu mu leer. Hmm. waaw ok. waaw Issa ñu ngi lay jaajëfal bu baax si accueil bi ñu defal tey jii. waaw allah kontaan nañ si yow. noonu la àdduna noonu la quoi nit ñi dañuy tey mbokkam ndax su ñu ne yéen ñoo ñoo xool. Hmm. mu ñoo dem sans yéen. dina ñaanal yàlla. si kaw ca kanam ñu ñaan si réew mi jàmm. wasalaam merci beaucoup. jaajëf jaajëf. sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar ñu bëggoon ci nga xam ni nga defal ñu ay témoignages si Issa di sa xarit sa doom ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal Doudou Makhtar yàlla na fi yàggata wér vraiment Issa moom bu ñuy wax ci moom fi <coughs> la ñuy finaan gisoo ni ngeen ko fekkee ñun mu toog nii si mbaar bi moom nit ku simple la vraiment nit ku baax la Issa man vraiment ma jàpp ko mooy ni meloon ak sama pap wax na ko léegi ci biir interview bi ni mu meloon ak sama pap dafa nanguloon sama pap sama papa mag la woon mais dafa mës a bëgg da doon jóge place doxam ak mag gi mais Issa day ànd moom ànd moom ba kër gi vraiment loolu moo gën a ramba jàpp ba jour bi mu génne àdduna Issa bokk na si njëkk a ñëw génn xaalis teg sama loxo vraiment di ko ñaanal carrière am yàlla rafet na daal dañ koy ñaanal mu gën a rafet xam nga ne ku daan Balla daan Tapha Tine hmm? daan Yékini Junior donc kon làmba kenn mënatu la cee génne comme ni nga ko waxee rek làmba dafa bëri moment bi mu dafa bëri loo xam ne dafa dafa dafa yàqu ci dafa yàqu ci làmb léegi làmb ji ku mbaam nday la ku mbaamu nday ku mbaam nday la ku mbaamu nday comme Issa li mu wax rek vraiment Issa nit ku baax di ko ñaanal yàlla mu gudd yàlla guddaloo fanam defal ko jàmm ba lépp li nga xam moom la bëgg si njabootam yàlla defal ko comme ni ngeen ko gisee rek moom bu demulee ci làmba ji day dem géej day def lépp moom moom businessman la moom du xaar kenn du ñaan parce que borom jom la te yàlla tamit bàyyi ko ni nga problème am kenn du ko am lu mu bëgg a faj mu ngi koy fajal boppam donc loolu rek sant yàlla la aussi tamit di leen remercier yéen waa 7TV vraiment tamit Sénégal 7 ah vraiment seen kii bi am na solo dañ koy siibur parce que lii mooy développement la daal développement la te Sénégal lii rek moo ci xaj di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yóbbu leen niveau boo xamante ni fa ñuy dégg télé yu mag yi foofu la leen dégg incha allah rabbi ah. jaajëf